Estatique Tabaski ak Mouhamadul Amin Ndiaye xaadimul muslimin bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbi wa man wala bokki fu ngeen man di nekk ci àdduna ñu ngi dikk ak yéen nag ci seen dernier jour muy suñu dixième jour ci weeru tabaski ñuy am mbégte lool nag tey ci bis bi nga xam ni mooy bisu euh, tabaski tey jii bu ñu xëyeeg jàmm incha allah taala ci lañ war a xëy ñu nekk ci guddeem guddi gu nekk mooy jiitu bisam bokk yi tey la tabaski bu ñu xëyee ba julli ba noppi nañu baloonte àq ci sunna sunet bi sallallahu alayhi la kenn ku nekk ñaanal sa moroom jàmm yal na la yàlla nangul yal nañu yàlla boole nangul baal ma àq baal naa la réew mu nekk ak séexa ba mu koy waxee waaye lépp rek dafay duggaat ci sunna sunet bi sallallahu alayhi te ñu yaatal njaboot gi bu baax a baax nettali nañ ci kutub ahadis yi nii yonent bi sallallahu alayhi fekk na Abu Bakr as-Siddiq fekk eh, na Aïcha ci néegam mu amoon ñaari jànk li ñuy tuddee jànk ci jamono bi ñaari jànkam yooyu ni ci biir biir néeg bi ci bisu tabaski di def li jigéen di def maanaam lu mel ni fo ak wo woyantu yonent bi sallallahu alayhi gis Abu Bakr di leen ko tere di wax Aïcha bàyyi leen coow li yonent bi ni ko bàyyi leen tey ñu maanaam bànneexu ndax xeet wu nekk dañoo am seen feet te bis bi suñu feet la luñ ciy déggee mooy lépp loo xam ne nii fo bu dagan la rek lislaam nangu ko bàyyil xale yi bàyyil njaboot gi bàyyil jigéen ñi ñu def ko dara nekku ci ñu yaatal leen bañ leen a xatal bañ leen a jooyloo ñuy ñaan nag suñ borom may ñu ñu fekkee ko at yu baree baree bare mbokk yi ñu leen di gërëm di leen sant ci seen suivre gi nga xam ne yéen ko doon suivre statut de la tabaski waaye di leen wax ni incha allahu taala du yem ak yéen fii fas nañu yéene bu tabaski gi jàllee ñu continuer yéen ci statut de la semaine maanaam semaine bu nekk danañ leen indil loo xam dafay aju ci seen wàllu diineeg seen wàllu àdduna la ca lislaam wax ñuy rafet lu baax ci topp gi topp Faaida TV di leen wax bu leen fàtte abonné ci kër gi di Faaida TV di sant borom kër gi euh, Serigne maxtar Talif Vision ci jàppale gi ak tamit ci yitte ji ak image yu rafet yi taxaw bi nga xam ne mu ngi ko doon taxaw video yi di am mbégte di leen wax déwénati leen fekk leen déwén yàlla nañ ko yàlla may ñu teewe ko at yu bari wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.